fay bu baax a baax di leen dalal. ndox mi moom na nañu lool sonn na lool lool lool dañuy toog ba xaaju guddi du ñu am ndox ñaari fan kuppiiru ndox du am sax lu ñu naan dañuy jënd ndox jënd ndox mënu sangoo sax dañ koy jënd ah maire Mbour bi nag war na wax si dëkk bi war na wax si dëkk bi ndax lii metti na ndax bu politik bi jotee dañuy dugg si kër yi ku ne ñu loqati la di wax ak yow te bu leneen amee duñ ñu jéem a lijjanti nañu lijjanti nag population bi sonn nañu ëpp na ñaari weer nii nii ku piiri nii ëpp na ñaari weer moom ëpp na ñaari weer ndox mi ba lay ñëw xaaju guddi yenn saa yi dañuy yeewu di root duñu fekk ndox am xaaju guddi deux heures du matin moom boo yeewu wala trois heures di nga am ndox te lu heure yooyu wóorul yenn saa yi wóor ñu duñ fi nekk surtout man xool nga sama doom yi nekku na fi ñoom ñëpp dem nañ géej seen pap bu fi ayewul maag sama doom yi rek ñoo fi nekk xam nga doo mën a jug guddi bandi ak yooyu. ah moo tane woon fuuf moo gën est tane fuuf moo gën sax laay wax moo gën si suñu gis-gis ñun. seer na ba pare doo gis ndox doo dégg ndox te facture bi bu ñëwul ñaari ñaari facture soo amulee xaalis ñu coupé la. ñàkk ndox mu métti na trop na guddi duñ nelaw bu tey bis si mujj cinq matin laa yeewu tuuti laa am. parce maa ngi dem ba marché marché robinet bi nekk marché si laa dem rot fa fukki paan ak ñaar fay oto ba fii ñu andi ma ñu andi andi ma fay guddi dëgg dëgg duñ nelaw xale boobu mooy da caabi robinet guddi guddi maa koy fëgg mbaa moom bu teelee yeew mu kii la suñu bidon yi des fois duñuy xëy ba soo ngoon ba léegi nii ubbi na sa amuñu ndox franchement ñàkk ndox métti na trop. waaw yëg nañ ko ndax bakk dem rek am na ku fi andi benn oto fii ma ñu ndox guddi mel nañ ndox mu xëy meer ñu ndox sax si lañ doon si lañ jàppoon sax doon si liggéey waaye nag yëpp duñu am ndox te xamuñu fu ñu koy jooy nag metti na trop dëgg dëgg metti na trop moom. li ngeen dox mooy jafe-jafe ndox mi ñoo ngi koy dund nag ndax amul tey borom kër boo xamante ne guddi jot na nga mën a tëdd gis ngeen da ngeen maa fekk may nelaw bu 2 heures jotee ngay commencé root mbala trois heures jëm ba fajar soo xasee tëdd ba 4 heures sax boo jógee bala ngaa root ñaari gudd robinet bi tëj. mu doon jafe-jafe boo xam ne nag ku ne ci gox bi rek dund nga ko ñuy ñaan yàlla rek nag ñu jeex nag ndax jigéen ndox moom mooy baasam loo mënti ñàkk soo amee ndox am nga lépp. am na suñu mag bu nekk fii tout près bu keroog bi ñu ko waxee dañ doon ree muy yaa indi ko naate mu ne jóg leen ñu mars soo suñuy mbubb yor yor bu rouge dox doxu ñaxtu waaye xam nga Sénégal mënul ñaxtu xam nga lu mën. waxu biir kër waaye waxu mbedd mënuñu ko maanaam jóg rek takku rek jël suñuy sagar rek topp ci mbedd mi dem ba SDE wan nañ ñun am nañ naqar defaguñ ko nag waaye jot na nag ñu def ko ndax ñoo ngi ci coono bi. kon ñun buñ doon jooy ki nga xamante ne moom la ñuy jooy lii mooy ki ñu dénk muy suñu maire muy suñu maire moom lañ moom la jooy daal wan ko ne ko ñun suñu réew dara doxul. ñun buur booy xool amuñu maire parce que maire bi toppatoowul dara ndox amu fi amuñu ndox ñoo ngi nii. ca terne bi bu ñëwee kenn du du doyee sax ñaari yoon du doyee sa terne bi du doyee dañuy jëndi ndox gutt juróom fukk mënuñu koy jënd chaque jour gutt Evian juróom fukk bi ñu jëndee ko 500 mënuñu ko toujours bu jot dañoo jaboo coose daal sonn na lool ci nàkkum ndox dafay yàgg nag ñaxtu bi wax nañ ko dañ ko doon waaj sax wante foofu ngeen ñëw dañoo sonn sonn nañ fu coono yem